mosoo gis benn touriste touriste mm-hmm. bu sérieux bu toog di ko jéem a dëggal gisuma benn journaliste bu naafequl même yu naafeq yi sax am na ci ñu nga xam ne kal nañ quoi fii la dañ naan la fii la sama naafeq mën a yem nag ma avancé quoi xam nga ñi ci am intérêt nga xam ne ñoom jàpp nañ ne Sonko bokk ci élection yi seen musiba la mm-hmm. mu ñàkk cee bokk seen njariñ la mm-hmm. ñooñu moom ñoo ci nekkoon di ko défendre mu nekkoon jour boo xam ne su fekkonte ne justice Sénégal taxaw na nekk Sonko mi ngi ci état de compte maximum jàpp naa ne maanaam soxlaatul sax ñi ñi ñiy dem ci kanamu ab ab di wax daal. Mm-hmm. léegi la lu leeree noonu nga xam ne sénégalais bi gën a ndaw boo ko laajoon mu wax la justice ne ah Sonko nekkul état de compte max mu nekk ngandimaame effectivement loolu lan nga ci xaar mooy sénégalais yi jàpp nañ ne justice su Sénégal dara nekku fa. jàpp nañ ne bépp kasaw kasaw ñeme nañ koo jox àtte jox ko dëgg loolu la sénégalais it wane man nag jàppoon naa ne mësuma ci def sama yaakaar nag parce que man dama mësul gis Ousmane Sonko dem am dëgg mais lii li ma ci jàngat mooy nekkate ñoom bu ñuy bañ Ousmane Sonko ñëw euh, affaire Mame ah kon c'est parce que bu ñu toogoon avocat yi plaider ni war a plaider ah ci jox ko dëgg affaire Adji bu ñu toogoon. Euh, avocat yi plaider ni ñu war a de yoon jox ko dëgg parce que keroog avocat yi bi ñu plaider surtout maître Bamba ne ko <coughs> est-ce que maître Bamba dafa wax juge bi ne ko. dafa wax mhm. juge bi ne ko est-ce son Ousmane Sonko mi sàcc téléphone. Mhm. ak mi ñu doon tuumaal viol. Mhm. léegi jàpp nañ Ousmane Sonko mi sàcc xam nañ ko. mais Ousmane Sonko mi ñu doon tuumaal viol ñu ngi koy wëri. est loolu ñeme nga ko ñem maanaam ñeme nga ko saxale yow maître Etienne. ak ñoom ñëpp ku ci nekk plaidoirie bi mu jàllee da ngay xam ne ñii taxawuñ fu dëgër bi ci des mooy euh, agence judiciaire de l'état bi. Mm-hmm. tab njëkk a tekki gar karawaat. <laughs> daa tekki karawaat. waaw ñu dem ba mu yàgg mu tudd mbubb yi. daa waaw ñu dem ba mu yàgg mu tekki dàll yi wut ay dàll corax na kii. <laughs> mais salle bi daa tàngoon de. ah mais mais tàng na ci ñëpp ah. <laughs> mais moom moo doon su kon bi muy ñëw na man la defoon. mais yow dafa geetaru ba da dëgër njëkk-njëkk ñiy dem ba mu yàgg mu summi. xam nga tey man damaa Cheikh Yérim bu bees costume bu bees. waaye bu ci booleel liñ ci boole la xam nga Yérim moom. non d' accord loolu kii la woon. non Yérim Yérim moom Yérim moom ku yebu yërëm ko rek. <laughs> Yérim moom day mujj ñu yërëm ko. parce que Yérim dafa am benn problème bu ndaw ak sénégalais yi te xamu ko. te yaakaar naa sax su ma seetaanoon xam ko moom dina ko dina ko sensé daal. mooy moom demee France. après nga ñëw sol costume bu bees takki weer pare na nga pour sénégalais yi koo nañ koo goo xam ne loo bëgg dugal ci seen bopp mën nga ko cee dugal mais loo ci bëgg a génnee mën ko cee génne hmm. moom loolu la jàpp quoi sénégalais yi nand nañ bu yàgg te moom yëgul ne nand nañ <laughs> xam nga hmm. parce que man gis naa yirim ci Pape Ngagne Ndiaye mu toog di wax mais da xam ne yirim amul jàpp jàppewul sénégalais yi ay nawle te da leen a yàpp dem banaan ñu suñ démocratie bii amul njariñ jàllo loolu nit dina taxaw ci penc wax ko. mais du moom kese moo ko njëkk kan moo ko wax xam na ñu jàpp ne. kan la dëkk dëggantaan. nee ma diw bu tolloo si defaru. nee ma diw moo ko wax. dëkk bu loolu yirim dong. mais par exemple boo jëlee misaal fu mel ni Rwanda. xam nga képp ku taxaw boo jëlee misaal fu mel ni Rwanda. Mhm. xam nga yow Rwanda amul ku mel ni yow Cheikh Bara Ndiaye mhm. maanaam koo xam ne nii mën na ñëw si plateau wax librement opinion am critiquer mhm. Mhm. gouvernement weeg nangam xam nga Rwanda amul lool mais Rwanda li nga koy kañee tey jii moom mooy progrès yi muy def au niveau si wàllum koom si wàllum infrastructure ak si wàllum intelligence artificielle ak loolu mais dictature moo nekk foofu am na ñu jàpp na nag réew bu tollee si defar comme réewu Sénégal yi nii léegi Rwanda rek ngay jël yow Rwanda rek ngay jël non misaal la bu ma la jox rek démocratie seerul mhm. parce que dama lay wax benn affaire mhm. képp ku taxaw ci pénc Cheikh Yérim laa koy wax képp ku taxaw ci pénc ne démocratie bi nekk ci dëkk bi dañ ko fi war a jëlee yaa ngi woote ci de d'état ak guerre civile maanaam indirectement nga ko woote parce que dëkk bu ñu demee ba ne léegi defatuñu ay élection jaaratuñ ci yoon wi démocratie rëdd mhm. guerre civile dafay am euh, coup d'état dafay am léegi man damay laaj Yérim tey bu ñu ne woon léegi doxatuñ ci ci ci ci ci ci ci ci. démocratie démocratie. démocratie ci ni ñu koy dundee nii Sénégal. ci ni ñu koy dundee nii Sénégal ñu ne léegi doxatuñ ko. léegi ñi mel ne Ousmane Sonko ak man ak keneen ak keneen nga xam ne d'accorduñ ak nguur gi ban yoon la leen Yérim tegal pour ñu mën a jël nguur gi te jàmm rek di am moom amu ko. donc mooy boo nee kii confisqué nguur gi ba noppi dëkk bi am ñu d'accord ak nguur gi mooy kon léegi su ko confisqué xanaa da ngay dem wut ay ngànnaay kon yow tamit ñëw. démocratie rekk ci àdduna moo mën abdu Diouf ni mu woon Sénégal. Mhm. benn ngoon abdu Diouf jël dooleem yépp jox Ablaye Wade dem te kenn deewul kenn xoseekuwul loolu système boo ko bëggoon a def bu dul démocratie bal tàkk Abdou Ablaye wàdd ni mu meloon ci Sénégal ak ni mu ko noté woon ni mu yilife woon réew mi yor lépp Macky ñëw jël nguur gi ci moom mu dem ci jàmm Macky Sall toog di gouverner lu dul démocratie boo ko bëggoon a sensé noonu amul. d'accord lu ko mën démocratie aussi. Hmm. mooy loo xam ne mën nga ci juum dem jël benn waay boo xam ne xamul dara nga ñëw teg ko nga xam ne kat da nga juum nga jaaraat ci démocratie sensé kooku tegaat fi keneen taxat du damm mooy li Sonko waxoon dañoo faloon Macky ba 2024 démocratiquement nañ bàyyi ba dem 2024. mais ñu teggi ko fi moo gën ñu koy jaay doole di ko di ko di ko fi jëlee loolu démocratie rek. moo am loolu léegi nag damay jàngal Yérim benn affaire. Mhm. mooy na dem gëstu baat bi ñuy wax kakistocratie. kakistocratie kakistocratie. Mhm. kakistocratie nag. Mhm. su nekkee ci dëkk ko amalul njëriñ dëkk bi dañ ko war a xeex. kakistocratie mooy lan. kakistocratie. boo ko xamee mooy baat boo xam ne saa boo jëlee démocratie. gis nga mas ngaa gis sénégalais yi ñu ngi dugg bato. ak gaal yi naan dañuy dem. ay dëkk. Mm-hmm. mas ngaa gis ñu dem dëkk dictateur mas ngaa gis benn sénégalais bu yéeg bato wala mu jaar ci yoonu suuf nga ne ko foo jëm mu tuddal la dëkk bi nga xam ne foofu dictature moo fa nekk. France gi ñu yéem a dem itali Amérique. États-Unis état États-Unis yëpp maanaam dëkku démocratie yi la sénégalais yi daw di dugg États-Unis boo dindi woon seen démocratie desee wuñ dara en 1945 ak Amérique ñoo fi nekkoon nekk euh, état Union mm-hmm. ñoo fi nekkoon nekk ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari pôle mm-hmm. bii pôle muy Amérique dafay dox ci àq ak yelleef moom tabax mbir nit ñi ci démocratie may leen liberté mm-hmm. bii moom mayewul dara ci liberté parti unique la yor kenn du wax bi ñu demee ba 1990 bi nga xam ne moom dafa dafa xañ nit ñi liberté mais dafa daanu bi doon may nit ñi liberté ba tey ji mi ngi fi ji da jël benn pays